sëriñ Fallilu mooy noobalu islaam fi nun mboolem sëriif yi moo ci gën donay Useynu wal may xaadamam ci xarnu bi sëriñ falilu ma wax la lëf ci ay jikkoom lawet wayaf ànd sagoom te nuru na baay ba mat na doom ëmb na kersa xarnu bi dem na ba màkkam jullikaay aj na siyaare ngin ji baay te indiwul alal dinu jaay nawleem amul ci xarnu bi taalifey baay amay mu dunu du si xam-xamam moo naan ci gi jóge kamam si room ba doy na xarnu bi sëriñ Fàllilu mi na am li muy ci nun te nu am li ñuy mébét ci moom te yàlla na ami sët yu gën a gëm waa xarnu bi